lancement bi dañoo wax euh, bàjjen gox yi ñu dugg ci biir Guédiawaye yëpp xool ñi nga xam ne ni bëgg nañoo xaraf seen doom yi te manque de moyen am ñoo xam pas manque de moyen la parce que presque Covid bi laal nañ ñëpp kon pas manque de moyen ñu bari ñu ngi toog si kër yi bëgg xaraf seen doom yi mënuñu ko lekk nag ñu duggoon ci koñ yi xool ay puisque bëggu naa euh, xarafut xale yu bari waaye comme ouverture bi jub si na ñu jël 250 xale rek kon nag ñu rafetlu baax a baax a baax geste boobu. parce que xale bi ñu leen recensé ba pare moom daf leen a ñawal xale bu ñu xaraf rek ñawal nañ la pour jox la mbubb nga sol ko kon loolu geste bu rafet la bu noble la. donc encouragé ndax loolu yombul yombul parce que sa doole nga dimbali ci nit yombul loolu ku ku yëwoon moo ko man euh, ñoo ngi koy wax ni que de toute façon nit tamit da ngay dimbali sa population parce que da ngay gis population bi am na lu ñu aajoo am na lu ñu soxla kon boo leen cee dimbali tamit ñëpp la ñuy sant. kon geste boobu dañuy ñaan képp ko am doole rek nga di ko faral di def ci sa sa quartier wala ci sa commune parce que dafay dimbali néew doole yi pour ñu gis seen bopp. tey jii bés la boo xamante ni bés la ci bés yi bés bi lu ko waral mooy Serigne Madou Seye taw feex mi nga xamante ni moo def lu rëy lii ci réew mi dajale xale yi ñëw fii ci Aslem Paris def fi liggéey bu rëy loora mat ñetti dimanche dimanche bu ne mu xarafal cent vingt cinq personnes xàmmeewul ki am ak ki ñàkk. moom li mu jàpp rek mooy comme fii la juddoo fii la yoro fii ci HLM Paris moo tax mu ni moom ak lu manaam mooy li muy def day ñëw fii ci këram gii defe ko fi ni ko fi defe mooy day boole xale yi amul Jean amul Paul ñëpp lay boole takk leen ci benn buum kenn ku ne sa teraanga ji muy séq ak yow ak say jur mooy daf lay dugal néegu góor kon sëriñ ma dun say borom tawfeex yàlla na yàlla yokk sa jàmm dëgg neex yàlla di ko rafetlu lool lool lool geste bi moom sant rek rafetlu ko wax lii ku ko gis rek ndax am na ay parents yoo xam ne bëggoon nañu lii te mënuñu ko wax dëgg neex yàlla ñu amee ku leen ko defal soo demee di waxtaan ak ñoom dañu koy dañ fekkoon lu ñu yàkkamti la parce que nga yore ñaari doom ñetti doom nga bëgg ko def te mënuloo ko def mooy yi li mu laaj mënuloo ko wax dëgg neex yàlla nga am tey ku defal lii loolu du rafetlu ko rek doo ko def. lu mel ni ku ko def ci biir gox loolu yokkute la ndax day def benn acte boo xam ne noppal la day gën a tax sax ñeneen ñu mel ni ñoom mën koo def ndax lii mooy social nga ñëw fekk gox jël lu mel nii def dugal gox dëgg neex yàlla yokkute la ci gox bi. waaw ndax day gën a yokk ndax am na déggoo li ma la wax léegi am na ay parents yoo xam ne ñoo xam ne seen ñaari doom wala ñetti doom ñu ngi waroon nañ ko def yàgg na mënuñu ko def parce question de moyen la nit ñëw defal la lii wax dëgg ne yàlla day yokk ci gox bi am ñeneen ñoo xam ne tey bu ñu gisee lii mën nañu def lu mel ni ay social lu mel ni man la alaaji dërëm gaaju wujj Fatima ak ma xura jaak sàkkitu golo daggit jaan saa maam unkum cooli mbaa daan góor ga ca kanaay tooti yi sama a doon for benn meegof cigarette wax la ñaati nit a ko tox barki yonent bi borom taw fee xëy sama lépp barki yonent bi waaye def na lu rëy te ku def lu rëy nag dégg lu rëy ah indi xale yi fii ci biir kër gi Euh, di leen jox ay kado kado yu neex nag waaw kado yu neex la ñuy joxe fii xarafalu nit ay cadeau la ñuy joxe da ngay dugg nu jox la vélo baa nu jox la euh, ay fawukaay waaw waaw jox la lekk naan bu waaso génn dem xarafal amu fi ay cadeau la joxe tey loolu nag borom taw féex a def yalla nako yalla may gudd fan ak ci barki sayyidina Muhammad lepp lu mu sumbu borom tawfiq yalla nango Le pulu daan lepp loo yootu yal nango jot ci barki Serigne saliw sa yaakaar tay ak ëllëg. ta rek ak xewal ak bax li ku bax rek moko man waji jambar la dikoy ñaanal rek yal nako serigne saliw defal lu rafet njottam defal ko gudd fan ndax li dafa jafé ku jël ay tour tank defal leen xewal dañ lay ñaanal rek ak daal ñun daal ñun ñëpp kontaan nan daal parents yëpp kontaan nan dañ koy ñaanal daal yàlla na lu mu mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp ci barke sëñ Saliou man ñii samay càmmiñ lan kon tey bu ma gisee xeetu baax baax lépp lu ma jàppoon dama koy bàyyi ànd ak samay doomi càmmiñ indi ko daal ndax lii xéewal la xéewal baax la daal ñi ñaan xéewal gi yàlla lawal lawal law ba kenn ku ci jotoon yàlla jotale ci ci barke sëñ Saliou rafet rafetlu ko lol rafet rafetlu ko lol waye nak bettu ma mu joge ci Medoune Seye euh, parce que modoun au-delà que euh, li yalla def ci mom tay day doomu gox bi juddoo ci sunu kanam di sunu dom di sunu jarbat ñu yar ko té c'est pas la première fois également muy def lu bax jëmale ko fii ci dispensaire bi xaj bi yon sax population bi la mais ci dispensaire bi la koy defee bo duggé légui ci sali yi am lal yo xam mo jënd def ko fi du tàggoo bari na lu mu def ci dispensaire bi. macha lol kay du problème de santé sax mais problème euh, j'allais dire euh, l'islam sax daf ko santané parce que góor né nun góor julli ji euh, góor bu du julli sax amna lu lu yalla wax mais nun julli ji en tout cas lolou ku ko def parce que dang koy def ala kulli yàllin donc ku lo ko defal amel nga ko njukkal Médine li mu def dal li nu man moy ñaanal ko lu mu man ren mu man dewen lu ko ëpp fuuf yàlla jàppale ko ci mbiram. vraiment lii dafa nekk initiative bu rafet a rafet a rafet ndaxte ku wax sëñ Medoune Seye wax social te li gën a neex ci sociale bi euh, fi mu juddoo yaroo fa màggee fa fa la njëkkee defee ay social am waaw ndax moom amul lu dul HLM Las amul lu dul fii karte bi waaw kon bu ñëwee euh, yàgg na fa ay social mais bu ñëwee jël fi plus de plus de cent. 25 boy war leena jongal tay dimanche muy première édition dimanche prochain moy deuxième édition chaque dimanche mu jongal plus de 125 xale loolu dafa nek initiative bu rafet te kenn du ci fay dara lepp mom mokoy gérer lepp mokoy def kon mom dañ koy ñaanal yalla na fi yalla saxal bayiko fi ci barke Seydina Mohamed te yamul ci loolu rek sëñ Medoune sey mi ngi jàppale artiste comédien yi man mom ku ci nek bo bo bo boo toogee rek da nga nan sëñ Medoune sey ci man la gëna a far waaw loolu moom yàlla moo ko dimbale parce que amul xaar ma yàlla kii mooy diw wala kii nekkul diw moo xam nga am tur moo xam nga ñàkk tur day def rek te yàlla tax maanaam li nga xam ne lañ bokk def du man maa ko def mais ñun ñu ñëpp suñu ñoñu ñoo ko bokk def muy gannaaw ba amee xalaat bi mu waxtaan te kenn ku nekk ci ñoom te damaa bëgg ren xale yi nekk fii HLM Guédiawaye yëpp Daaru Salaam fiñ mi képp ku si toll jong te xarafagaloo te say waajur bëgg ko ñu jàpp bis xarafal leen wax dëgg yàlla bi ñu ko xalaatee ñoom ñëpp ñu rafetlu ko ñu àndandoo doxal ko boobu ba léegi ba bu ñu àgg ci bis bi tey nii ba ñu koy doxal nii dañ ko def nag dañ ko def rek ngir def ko ngir jëmm yàlla def ko te yàlla rek tax waaye def ko tamit pour soulager parents yi ndax koo ci gis mu indi doomam am na lu mu am na lu mu xarafalee doomam am na lu mu jënalee doomam yëriñ julli am na lu mu fajee doomam ndax ñoo jur seen doom yi ngénte leen di leen dundal di leen defal lépp kon loolu ñoom mën nañ ko mais xëy na xat-xatu jamono yi ak waa ji dina yóbbu sax yenn parents yi ñu yeex a jublu sax ci xarafal seen doom ndax ñàkk jot ak xat-xat yeeg yu mel noonu ma ne woon nag kon pour noppal leen ci loolu lépp nañ fexe jàpp benn bis xale yooyu yëpp ñu boole leen xarafandoo leen loolu moo waral bis bi def ko te yàlla tax waaye def ko tam ngir soulager taxawu parents yi nga xam ne ñoo njaboot gu ndaw gi donte ñoom mënal nañ ko seen bopp waaye ñu def ko rek ngir seen yenn wi diis boobu nga xam ne yenn nañ ko ci njaboot bi ñu jéem leen indi suñu passage tuuti ci oyofal leen ko rek loolu moo waral bis bi. Thiès fa laa dëkk ndax sama waajur bu jigéen fa la juddoo fa la jóge ñëw fii. sama rakk yëpp fii ñu ne nii fi lañ juddoo ñoom ñëpp ci ci gox bi kon fii amuñu lu ko ëpp maanaam buñ doon ñibbi tey ñu ne ku ne da nga ñibbi ñu fii la ñuy ndax fii la yàlla dogal ñu ñu bokk ci kon lépp lu ñu def it yooyu nga wax danañ ko fa def ndax na na am na yeneen yeneen dëkk yu ñu ko def mais xam nga ñun dañoo tàmmul di def di wax mais am na yeneen dëkk yoo xam ne ren ji def nañ ko fa xalé yu ëpp fuuf lim bi waye duñ ko wax fi ñu du sax li nga ci laaj ni gantalon na sa lu yàgg basoon na may gàntal di dem li nga ñew sax moto mu rus la rek jël kaddu waye buguma ci won sax di ci di ci di ci wax géejawe fi ñu dëkk nak suma sañon nak lepp fi fii lay am maanaam bu ma sañoon moom géejawe ñoy ñoy raw ci lepp ñun ba pare ñeneen ñu dogu jël wa ndax fi lañ dëkk fi lañ bok amuñu lu ëpp fi kon lepp lu ñu def day bax bu ñu ko defee ci yeneen bërëb ñu defee ko fi nga xam ne fa lañ fekk baax moo tax dañuy bëgg li ñuy def tam ñu indi ko fii ci gox bi nga xam ne fa lañ fa lañ dëkk. bu dee ci wàllu cosaan moom néegu góor dèjà ni ñu ko doon defee sax nga xam danaan nekk lël lël boo xam ne dañuy dajale xale yëpp yóbbu leen ci àll ba xarafal leen ñu bokkandoo ñoom nekk ci mettit bi. parce que léegi xëy na xarafal metteetut mais bu njëkk metti woon na ñoom ñëpp ñu bokk nekk ci benn bërëb ak seen mettit ak seen coono ak seen mbégte ak seen fu ak seen lépp loolu daan tax ñoom danañ doon jàngal ñoom xale yi ñu xam ne ñoom ñoo war a bokk lépp bu mettee ñoo ko bokk bu neexee ñoo ko war a bokk moo tax koo mosaan bokkal lël sax danaan kii sama frère la ndax da ngeen bokk da ngeen bokkoon lël danaan tax nit ñi gën a am jàppante ëllëg foo dajee moom ne kii ñoo bokkoon lël bu nekkee ci tolof tolof nga jàppale ko bu nekk ci lu mu nekk nga fekk ko si maanaam day mel ni gis nga sa mbokk boobu mbokk lañ ko doon doxe waaye itam wan xale itam pour ñu am bu ñu lay xarafal di xarafal sa morom sa bu jooyot ñu ne lekkoon kon yow waroo jooy maanaam jàmbarte googu ak pas-pas boobu ak bokkoo boobu loolu la mag ñi gënoon indi ci wàllu xarafal bi waaye tamit même ci wàllu wéer gu yaram jongal boobu xarafal boobu dafa baax ci nit ki ndax ñi ko deful ñu bëri am nañ yenn feebar yoo xam ñu ngi koy am seen seen seen seen awra yoo xam ne ñàkk xarafal boobu moo leen koy moo leen ko def kon nekk na loo xam ne luy dimbali xale bi ci wér-gu-yaram la waaye loo xam sax ci wàllu société bi ci wàllu ànd bi ci àllu bokkoo bi daraan dëgëral légion sociale yi daan ko gën a defar daan ko gën a rataxal moo tax lu am solo la moo tax sax ñi ngi xalaat bu fekkee ni jamono ju may nañu ko xale yëpp boobaa ñi fi xarafal lépp diggante tey ak beneen bis ñu boole leen defal leen benn fet moo xam kasak la moo xam lan loo xam ne ñoom it dinañ fàttaliku ñoom seen cosaan ak seen maam ak seen baay nañ ko daan defee mu nekk a pàttali ci ñoom rek bu ko defee at mu jot ba beneen année ñeneen keneen def beneen année keneen def mu pertuyi nga xam ne ñun suñu jëmm yi ñun luy passé la mu dem ba nga xam ne yeneen tout tànk ñoom seen bopp ci ñoom ëllëg ñoom ñu koy defal seeni i doom yi ko defal seen i rakk yi di ko defal seen sët mu nekk loo xam daal dañ koy perpétuer loolu lañ ci am yéene te di ko ñaan suñu borom mu defal ñu loolu. vraiment nekk na bés boo xamee ne tey jii HLM ñëpp ñoo ci kontaan waaw man en tant que délégué de quartier ma ne woon naa ñëw teewe bés bi vraiment lii moom mooy yëfu jullit action la boo xamee ne c'est du social te social la boo xamee ne ah Médoune Seye dey vraiment dañ koy ñaanal gudd fan rek ak wér yàlla yokk ay xéwalam parce moom wane na ne ci HLM bi la dëkk fi la juddoo fii la màggee fii la yaroo wane na ko ba nga xam ne lu mu am rek fii la koy andi parce que dajale ay doomu am seen doom nga xam ne ñii seen papa mën na ñii seen papa mënul nga dajale leen ne xaaral ma xarafal leen xale yëpp sans exception ñëpp ku mën a ñëw rek ñëwal seetu ci nombre seetu ci dara moo leen di habillé moo leen di defal lépp bu ñu génnee moom moo leen di habillé moo leen di feetal vraiment kooku dañ ci mën a kontaan délégué nag au nom du quartier des HLM Paris de Guédiawaye maa yor seen kaddu maa ngi wax ak ñoom nee ñëpp nee nañu kontaan nañu seen xol sedd la waajur yëpp seen xol sedd la yàlla na ci yàlla sotti ndox mu sedd guyi vraiment Médoune daal amuñu lu ñu ko mën a wax lu dul ñaanal ko yàlla rek yàlla guddal fanam wéral ay cëram jërëjëf loolu daal laa amoon lu may wax ci bés yàlla ko yàlla suñu borom sottal ak jàmm ak salaam. maa ngi tudd Mafari Mbaye man maay organisateur journée bi ndax ginnaaw bi Serigne Médoune Seye borom tawféex amee initiative bi daf ma woo dénk ma ko bon début bi ñu àndoon ci atay nit doon ko liggéey yalla dogal bañ yegg si fii biñ yexé tay au début daf ñu waxoon ut leen nombre bo xamantene xalé yi nga xamantene ne ñoo fi nekk te dugg ñu néegu góor ñu recenser leen duggal leen ci au départ l'objectif était de 100 enfants mais à un moment donné dañu dem ba ben moment donné demande bi ci 3 jours ñu am plus de 100 bon bi ñu ci mom wax ko ko dañu képp ku ñew rek ci yeen am yaakaar bëgg ngeen defal ko rek bu leen ko rejeté donc bing ñu au bout de deux semaines on a eu 250 bon on pouvait avoir plus mais dañuy xalaat ne ak année scolaire bi di ñëw xale yi dañuy dellu école moo tax ñu arrêté que ci loolu mais moom d'accord oon na ba mille xale mais contrainte de temps lañ am moo ñu on s'est limité à 250 cent bon tout même dernière réunion bi ñu mujj def ak moom dafa doon

dañ leen koy jox mu yeneen yére yoo xamante ne day boobu day nekk ay yëre pour comme day am boo yëre yëre entrée ak yére sortie bon yëre njulli ak yére booy sumee donc tey bu ngeen seetloo xale bu ci nekk biñ la xarafalee ba pare jox nañ la benn kit kit bi am na orange am na banaan am na pomme am na jet am na bisi crème am na ndox parce que xale yi je pense que loolu façon la boo xamante ne pour euh, soulager wala neexalee ko xale yi donc si loolu yëpp day dugg ci lancé bi nga xamné ci si Serigne Medoune Seye nek moy œuvrer dans le social donc ci lolu la nek depuis lors lolu mo indi journée yi journée de circoncision gratuite yi nga xamantene dañ koy def pour xalé yi